أصحاب السماحة المشايخ السادة المدعوون السادة الحضور السادة الحضور نيابة عن عن الحاضرين من مختلف الزوايا الموريتانية وممثلي شتى الطرق الصوفية الموريتانية أتوجه إليكم فضيلة الشيخ ومن خلالكم إلى فضيلة الخليفة العام وكافة الحضرة أعضاء الحضرة البكية الطوباوية كل باسمه وخالص واسمه نيابة عن الوفود الموريتانية التي حضرت اليوم لمشاركتكم أفراح وأتراح هذا الحدث الإسلامي العظيم حدث المقل هذا الحدث الذي لا تخص به الطريق لا تخص به الطريق البوليدية فقط بل هو حدث جامع شامل لأنه يوم تذكر نفي الشيخ الخديم رضي الله عنه تحت ضغط المستعمر البغيض ويوم تذكر تلك الأيادي والنعم التي أفاضه الله عليه أفاضها الله عليه بعد هذا المنفى فهي اذا مناسبة وحدث إسلامي شامل كامل جامع فجميع الموريتانيين حضروا معكم هذا اليوم لمشاركتكم إياه ولتعزيز وتوطيد الأواصر والوشائج التي ما فتيت تربط بين الحضارة البكية والحضارات والزوايا الموريتانية فمختلف الطرق الحاضرة هنا من قادرية وشاذلية وتيجانية وحتى مريدية في موريتانيا حضرت هنا اليوم حاملة رسالة الود ورسالة الأخوة التي آه، التي نصب أوتادها ووطدها أسلافنا المنعمون رضي الله عنهم و ومن ومن وهذا الحدث العظيم مناسبة كذلك للتذكير بتلك الأواصر التي ربطت بين الشعبين الموريتاني والسنغالي على مر الحقب والتي كان للمشايخ من مختلف البلدين الدور الكبير المتميز في توطيدها وتعزيزها على مر الزمن فباسم الحاضرين من مختلف الزوايا الموريتانية نتوجه لكم فضيلة الشيخ بالشكر وإعراب عظيم الامتنان لما لقيناه من حفاوة وحرارة استقبال وحرارة استقبال وكرم الضيافة طيلة وجودنا معكم في هذه القرية الطيبة الطاهرة ونغتنم الفرصة لنحملكم آه، آه، رسالة زيارة ورسالة التماس الدعاء من فضيلة الشيخ الشيخ سيد المختار الخليفة العام للطائفة المولدية أطال الله عمره بصحة وعافية ورفاهية ونغتنم الفرصة كذلك ل لنطلب من الشعبين الموريتاني والسنغالي آه، العض بالنواجذ على تلك الأواصر والعلاقات التاريخية التي ربطت بين الشعبين الشقيقين ونثمن عاليا العمل الجيد والجبار الذي قام به قادتنا ورؤساؤنا السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز والسيد الرئيس مكي صل في سبيل توطيد هذه العلاقات وفي سبيل تعزيزها بالطراء وباختصار فإن جميع الموريتانيين الحاضرون الحاضرين هنا يشكرونكم ويعبرون لكم عن عظيم امتنانهم وكاملة الشكرات لكم ويدعون الله لكم بطول العمر وللخليفة العام ولجميع الشعب السنغالي الشقيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يريدون ملخص خليل بالألفية سرين بي. كون آه، سرين بي ay الله مريد murit ca Mauritanie am nañu mbégte bu baax a baax tey ñëw xew-xew bu mag bii mooy xew-xew magal nga xam du xew-xew murit xew-xewu lislaam la ndax sunu sëriñ bu baax bi Cheikh Xadim radiallahu anhu xew-xew li li ko tubaab yi def ba yàlla ubbil ko ci bunti leer ak bunti xeewal ci wàllu yàlla fàttaliku bis boobu xew-xew boobu waa Mauritanie ñëw ni ñëw nañu tey jii di bokk ak yéen fàttaliku loolu ñëw ci yéen ci njëlbeen di leen sant di leen nuyu di leen ziyaara ديران يوبا تسنو زيارتي خال جنرال الشيخ سيد المختار ان يلا غود الفنم اكوير دي رافيتو ايتام سي شيخ شيخ عبد البشير عبد القادر ست خواي تي ديغنت نياري ريوي نده دي غوي نجي ديف اتمو نيك دي زياره سكر دينا زاويه بو نيك تي موريتاني دالي كو روسو بنوا اكسوت بو بوتيميت بنوا دي بو نيك كتخاو فا سي جيم لولو غن فيت دي لي غن دغرا لي مو غن مو مو مو بولا نياري ريوي موريتاني اك سنغال نك سين ديغنت waaye tabaaraka allahu ci seen wàll ak suñu wàll ñëpp ñu ngi ci taxaw waaye nag suñu ñaari njiit yi di cheikh di président Mouhamed Abdoul Aziz président Macky Sall seen taxawaay ci ak jéego yi ñu def di ngir ñaari réew yi gën a ànd gën a juboo gën a bokk loolu mat naa mat naa feeñal mat naa ñaan yàlla mu gën ko dëgëral bu baax a baax sëñ bi ñi fi teew ci waa Mauritanie yëpp ñu ngi lay sërëm ñu ngi lay gërëm di la sant ci tertu bi ci ganale bi ci yëg bi jërëjëf jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah مباكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام باسم رئيس الجمهورية الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد العبد العزيز الذي أوفدني خصيصا لهذه المناسبة وباسم الحكومة باسم الوفود الكريمة التي هي بين ظهريكم ظهرانكم اليوم من مشايخ وأطر سامية وضباط صامون وأصحاب الصحافة والإعلام المتميزين وأصحاب المجتمع المدني الذي أراهم في القاعة باسمهم جميعا نود أن أتقدم لكم بتهانئنا الحارة وبتشكراتنا الخالصة بمناسبة مقال 2015 ذكرى المنفى وإنما هي ذكرى الجاه كما يقول الشيخ أحمد بومبا في أبياته الشهيرة أراد به الله سبحانه وتعالى أن يكون قيبته ومنفاه جاها ولا أريد أن أطيل فالعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية السنغالية متميزة فذكرها الشيخ الآن تربطنا واصل القربة والجار والدم وكذلك أواصل نحن الآن في هذا الشهر انتهت اللجنة الكبرى الموريتانية السنغالية للتعاون التي وقعت فيها أكثر من 15 اتفاقية تعاون هذا ما يدل على آه، الروابط المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين وسماحة الشيخ نشكركم أيضا خصيصا للزيارة التي قمتم بها لموريتانيا هذه السنة والتي قام بها أيضا مشايخ من جميع الطرق الصوفية لطوبى وهذا هو النهج الذي نحتاج إليه لأن كما أقول لا أحتاج إلى لطالة عندي رسالة مفادها أن الشعبين الموريتاني والسنغالي عندهم رسالة رسالة محبة وسلام والوقوف ضد القلو والتطرف هذا هو نهجنا هذه هي مسيرتنا التنموية أن نكون دعاة سلام ودعاة محبة وأن نقف زندا لزند وذراعا لذراع من أجل تنمية بلادنا بعيدة عن الغلو والتطرف مرة أخرى أجدد لكم الشكر ونشكركم على ما تلقيناه من حفاوة واستقبال كريمين ولا غروة أيضا فهذا مكان الضيافة فنرى في جميع إجاب الموريتانيون ضيوف خادم الرسول ولا أطيل مرة أخرى نشكركم وعيد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ محمد الفاضل mi nga xam ni mooy waajuru maamam di waajuru Cheikh Saad donc sët la ci Cheikh Mouhamadul Bachir kon fii mu ñëw ci këram lañu jël na kàddu gi di nuyu sëriñ bi ginnaaw bu mu euh, sante borom bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi nuyu sëriñ bi di nuyu njabootu xaadima rasul bu fi teew ak bu fi teewul ci jataay bi di ci jiital ki jiite eh, yoon wi di Cheikh Sidi El Mokhtar di xalif général des Mourides eh, neena lu muy wax ci diggante Mauritanie ak senegal Cheikh Baba léegi ci kàddoom fàttali na ko kon du ci dellu du ci sore eh, waaye lu mu ci fàttali rek c'est que ci gannaaw tuuti eh, grande commission mix ba nga xam ni moo lëngale diggante Mauritanie ak Sénégal amoon nañu fi jataay te jataay boobu génn na ci lu toll ci fukki. Eh, ah? ak juróom fukki ak juróom fukki ak juróomi accord yi nga xam ni tëral nañu ko ci diggante bi pour yokk diggante bi gën ko rattaxal gën rattaxal koom-koom bi am ak euh, jàppante ak jànkonte bi am ci diggante ñaari réew yi lu ëpp fukki accord ak juróom euh, tëral nañu ko pour gën a rattaxal loole euh, nee na ñëwam fii Euh, dafa ñëw pour euh, indi message yu kaddu ñëw ci kaddu ak ci ndigalu président de la république islamique de Mauritanie son excellence Mohamed Ould Abdel Aziz pour jottali leen ziyaareem jottali leen nuyoom euh, te di leen xamal ni jéegu yu Touba di jéegu ci diggante Sénégal ak Mauritanie yëg na ko te. ànd na ceeg yéen te lépp lu ci war te mu di war nekk taxawaayam incha allahu eh, dana ci taxaw eh, ci yu mel noonu la wax ci gàttal nee na mi ngi nuyu ñëpp bëggul guddal ndax eh, waxtu wi kii na te te xat-xat yi bare na nee na mi ngi ziyaare sëriñ bi di leen jottali kàddu njiitu réew mi ko fi yéen ni di leen wax ba salaamaaleykum wa rahmatullah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 آه، وأنا سأتولى إن شاء الله الكلمة بالعربية وبالولفية آه، سعد السفير معالي الوزراء والضباط وحضرات مشايخ آه، موريتانيا والسنغال نحييكم باسم الخليفة العام للتاريخ المريدية عن تاريخ الشيخ محمد البشير الناطق الرسمي ونرحب بكم في بلدكم الأول لا أقول الثاني مع الوفود الأجنبية آه، التي تتمثل هذا العام من إمام فايد محمد من لندن إمام جامع كبير في لندن وحضرت أو آه، فضيلة مفتي رواندا ووفد المرافق لشيخ بلال الصوفي من مالي وكذلك وفد كبير من ساحل العاج وفد كبير كذلك من إيطاليا آه، يعني آه، داير أنصار ووفد كبير كذلك من برازيل ومن الولايات المتحدة آه، نحييكم ونقول لكم وكذلك من من غينيا لأن آه، ما نشنا غينيا لأنهم من طوبى غينيا نعتبر آه، بأنهم يعني منا ونحن منهم ونقول كل هذا كذلك باسم شيخ سيدي ابن الشيخ احمد المطلع يعني الذي هو في موريتانيا حضر الجلسة معنا وكذلك باسم آه، سفير السنغالي في موريتانيا الذي اتصل بنا وقال هو في الطريق ولكن يعني آه، آه، الطريق ضيق ونقول لكم باسم الشيخ بأن بين السنغال وموريتانيا هناك عدة علاقات يعني هناك علاقة دينية وعلمية ثقافية سياسية واجتماعية ونكتفي ان شاء الله يعني هذا العام كذلك باشاره وجيزه بالعلاقه الدينيه العلميه التي آه، دشنا يعني هذه العلاقات لان كل يعرف بان الشيخ احمد بامبا سافر الى موريتانيا آه، قبل ان آه، يعني يعني ينتقل الى هناك بالاقامه الجبريه لانه باشر العلماء يعني وأخذ منهم وأعطاهم كذلك لأن هذه العلاقات آه، يعني الذي ذكر آنفا والعلاقة السياسية التي تتمثل آه، بحكومتين حكومة السنغال وحكومة موريتانيا ولكن إن شاء الله حينما آه، نعتني ونهتم بالعلاقة الدينية الثقافية التاريخية ان شاء الله سوف يعني آه، آه، آه، نكون يعني على يعني احسن يعني ما يرام لان كما قال يعني القائل ما يوثد العلاقه هناك عده موادع في في الجسد يعني توثد العلاقه لا تنبت عليها شعر لان يعني اولا وقبل كل شيء اللسان اللسان آه، لسان آه، يعني يتكلم ويكتب ويقرأ وكذلك يعني اليد لأن آه، اليد كذلك والرجل وأعتقد بأن يعني رحلات شيخ أحمد بامبا ورحلات شيخ أحمد مرتضى ورحلات شيخ أحمد مبكي كل كلها يعني تت يعني جسم كذلك بالرحلات التي الشيخ احمد البشير كل سنه يعني يخصصها لموريتانيا من اجل ذلك هو يقول لكم باسم الشيخ سيد المختار الخليفه العام لتاريخ الموريدية بان آه، هناك كذلك آه، يعني عدة عدة كذلك آه، لقاءات واتفاقيات مع جامعة موريتانيا ومع زوايا موريتانيا ومع مزايا موريتانيا لتوطيد هذه العلاقة العلمية وخاصة آه، مشروع يعني جامعة آه، آه، الإسلامية لا لعنة عليكم ونقول لكم يعني أهلا وسهلا في مدينتكم في في في طوبى لضيق الوقت لا يمكن ان نطيل ولكن بما ان البارحه كان هناك جلسه خاصه مباشره في في آه، على الهواء واليوم كذلك وغدا عده جلسات سوف نعمق فيه يعني آه، ونتكلم فيه آه، من اجل هذه العلاقات ني باخت دي لين سانت دين غرم شيخ محمد بصير تي تور شيخ سيدي مختار مي لين دي نيو دي لين غرم دي لين سانت تي سين تخواي بو رافيت تيو غين في تيو مو دي لين خمال ني euh li fi ambassadeur bi wax nga xane mo président Mauritanie tam mu ñëw fii fekk fii mbooleem këri diina yi nekk Mauritanie yëpp maanaam fekk fi itam mu ànd ak itam ay ay euh, maanaam euh, personnalité yu mag yoo xamante ne Mauritanie lañ jógee ñii di ay taalibe ñii di ay xarit sëñ Touba ñii di ay wëllëreem nee na mi ngi leen di dalal di leen eh, nuyu di leen sant ci taxawaay bi ak itam coono bi ngeen di jànkontee ngir wuy si woote bi bi ngeen ñëwee nag fekk ngeen fi ay délégation yu jógee bitim réew yoo xamante ne bari nañ waaye lim nañ ci tuuti rek ndax comme comme salle bi dafa xaw xat moo tax ñu bari ñëwuñ waaye dañ ci ràññi rek ki nga xam ne mooy imaamu London ki nga xamante ni itam mooy imaam mooy mufti Rwanda ak ak ak itam euh, ki nga xamante bi mooy euh, mooy <laughs> mi ngi jóge Mali di Cheikh Soufi Bilal ak itam délégation bu mag bu jógee Côte d'Ivoire euh, ñu ànd ak Bamba Moussa moom itam muy taalibe ivoirien ak itam. daayira bi nga xam ne mooy italien yi nga xam ne ñoo ñëpp italien góor ak jigéen ñoom itam ñi ngi fi ak itam eh, ay ay mbokki taalibe yu jóge Brésil nga xam ne ay brésilien lañ kon daal mel na ne àddina bi warngal képp ñëpp wuy si nañ kon ñi sëñ bi mi ngi wax ne bu soobee yàlla li mu baaxoo nga xam ne fekkoon na ko fi te diggante bi nga xam ne moom moo doon diggante Sénégal ak Mauritanie la ca jiitu muy digganteb xam-xam ab digganteb diine boo xamante ne bii mën nañ ne sëñ Touba moo ko ubbi woon ndax kenn ku ne xam na ne demoon na Mauritanie bi ñu ko fa daataa yóbbu ci li yéen ñëpp ngeen xam eh, dajeeg borom xam-xam ya jonjog ñoom jël si ñoom jox leen kon loolu moo ko ubbi te loolu mooy li nga xamante ne bu jagee rek. ñu eh, toppatoo ko suuxat ko comme ni ko Cheikh Ahmadou Bachir di defee ci ndigalul xalifa bi Cheikh Sidi Muxtaar yeneen yi ci topp yëpp muy diggante bi nga xamante bi ci wàllu euh, ictimaa yi la wàllu sociale la li nga xam ne wàllu économie la li nga xamante ne bi itam ci wàllu koom-koom la li nga xamante ne bi itam ci wàllu politique la lépp dina ñoŋ lépp ndax loolu mooy cosaan li kon moo tax mu mu di leen xamal ne euh, Cheikh Sidi Mokhtar euh, sant na ko ci liggéey bi mu daan def te itam mu continuer di ko def ci ñu gën di xóotal jataay yi neen rawatina bi mu fa mujjee def nañ fay jataay yu bari yoo xam ne waxtaan ak euh, borom xam-xam ya université ya ak ñëpp ngir ñu waxtaan ci xalaat ci projet bu mag bi nga xamee ne sëñ bi mi ngi koy def fii ci Touba kon xam naa ne loolu rek la ñu amoon luñ ciy wax ndax waxtu guddi dañu jox si euh, Cheikh euh, Abdoul Ahad mu tënk ko ci français moom itam maanaam jotali kàddu bu sëñ bi kon ñu ngi leen di sant. di leen gërëm sëñ bi nee na moom mbokkam yu baax yii mu àndal ñu dog ci wetam sëñ ba Basiiru Poroxaan ak sëñ Abdoulaye Gaynde Fatma ak sëñ Siidi mi nga xamante ne yàlla dogal na moo féete Mauritanie moom itam defa taxaw taxawaay bu rafet sëñ bi neena moom itam moo tax mu xër ci euh, mu ñëw euh, fekke ko xam na ne moom euh, kàddoom mooy kàddoom kàddu sëñ Siidi mooy kàddoom waaye nee na mi ngi koy sant di ko gërëm taxawaay bu rafet bi ci turu Cheikh sëñ Sidi Moxtaar ndax taxawaay bi rafet na lool kon mi ngi leen di sant leen gërëm di sant mbooleem ñi nga xamante bi ñoo teew di leen xamal ne sëñ bi nee na mi ngi masaw ji coono yi ndax kat moom lu mu xër xër xër xër lu ñu sant sant sant ñu taxaw xëy na doomu aadama léeg-léeg mën naa amu gàttañ lu wala loo xam ne la mu bëgg du ko man waaye nee na yéene moo noon kenn ku ne ñu wàcce la sa wàccuwaay kenn ku ne ñu teg la fa nga war a teg waaye xam na ne yéen dalalu leen ndax du ngeen ay gan ndax ñun ak yéen benn lañ um, kon mu ngi leen di santaat di leen gërëm te te ndax buñ ja jëlee benn bis jagale ko Mauritanie maanaam ci màggal gi bu ñu suba la màggal kon xam li Mauritanie di firi ci Sénégal li Mauritanie di firi ci ci mouridisme li Mauritanie di firi ci euh, maanaam euh, yoonu Sëñ Tuubaa rek mooy tey jii maanaam am na taalibe boo xamante ne bii euh, maanaam ministre la di taalibe Sëñ am na koo xamante ne bii général la di taalibe Sëñ am na ci borom xam-xam ñoo xamante bi ay taalibe Sëñ la ñi fi tudd Cheikh Ahmadou Bamba tey buñ ñëwoon na njëkkati seen loxo di di ay mauritanien kon maanaam ñu bari lañu doon kon lool wone na ne kon relation bi dëgër na kon li ci dess rek moy inshallah fex ko suxat ba manam dara bañ ci deltu gannaaw te itam lool la sëñ Basiru nek lool lool la ko Cheikh Sidi sante assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh monsieur l'ambassadeur monsieur le secrétaire général de l'OMVS honorables invités au nom de Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadir porte-parole du Khalif général des permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Vous souhaitez la bienvenue sur cette terre sainte de Touba, qui est également la vôtre. Parce que c'est des relations qui existent, les relations entre le Sénégal et la Mauritanie, et particulièrement entre la communauté mourite et toutes les communautés religieuses mauritaniennes, ce sont des relations solides, fortes, mais surtout anciennes. Cheikh Ahmed Bamba a eu à séjourner dans votre pays qu'il appelait la terre des saints à deux reprises. Et l'ensemble de ses fils qui lui ont succédé au niveau du Khalafa ont entretenu également ces solides relations. Et aujourd'hui, c'est ce que Chersi de Martar Mbake, par le biais de son porte-parole, est en train de perpétuer. Et vous, vous avez compris également le sens de ces fortes relations. C'est pour cela également que votre délégation est forte de plusieurs personnalités qui sont venues uniquement pour assister au Grand Magal de Touba. Et le chef adresse ses vifs remerciements au président de la République mauritanien qui a bien voulu envoyer son ambassadeur qui est venu délivrer son message. Et la communauté maurite joue un très grand rôle dans les relations qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie. Et comme il a si bien dit, la commission mixte qui vient de se dérouler s'est passé avec un grand succès et je pense que Cheikh de Massar va continuer en tout cas à œuvrer pour que ces relations soient meilleures chaque jour davantage. Et le porte-parole profite également de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes les autres nationalités qui sont ici présentes. C'est Richard on les a énumérées. Certains viennent de Burundi, de, du Brésil, d'Italie et de l'ensemble de des continents. Cela montre, si besoin en était, que le Magal a pris aujourd'hui une dimension internationale incontournable. Et cela est la volonté de Serine Bachirou, qui, dès qu'on lui a confié l'organisation du Magal, a quand même perçu l'enjeu et a perçu également l'importance de cette dimension internationale. Et aujourd'hui, donc, c'est son travail extraordinaire qui est en train donc de porter ses fruits. Et donc nous souhaitons à tous ceux qui sont là donc la bienvenue au nom de Serigne Bassirou et, et, au nom du Khalif général des Je vous remercie. Inch'Allah. نتوجه إلى